25 mars 2012 25 mars 2018 mu di Ben at président de la république Macky Sall yegsee si Sénégal. C'est Sénégal le premier site de référence de Caractère TV fasciné yéene samp laaj jox kàddu ñi nga ni ñoo ci nguur politique bi comme société civile ku ci ne ci ñoom indi sa xalaat natt président de la république ni Sénégal juróom benn at c'est seen premier site de référence Dakaractu TV. mbégte la di site de référence Dakaractu TV ci une série d'entretiens entretien yi ñuy def ans au pouvoir du président de la république Macky Sall ñu amaat dalalat kenen keneen ku sénégalais yi le présenter, di honorable député Farbangom honorable ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen fay yéen tamit ci nuyoo bi ngeen ma nuyu. Mhm, absolument may rappeler également yo yaay maire de la commune des Agnam n'est-ce pas c'est ça. oui alors durant benni at ngay collaborer ak le président de la république Macky Sall nga and ak mom gagné ak mom gouverner mom ci six ans de pouvoir. d'une façon globale ba ñu doon defal benn bilan d'une façon succincte lan lañ war a mën a jàpp si juróom benn at yi nga xam ne def ngeen ko ci bépp réew mi en tout maa ngi lay di nuyu du Dakaractu TV di leen sant di leen gërëm di gërëm ñi nga xam ne aussi nar nañ ko seetaan nga xam ne ne macha allah site bu crédible bu baax la di nuyu personnel yi liggéey ci biir yëpp ñi nga xam ne nar nañ ko seetaan aussi di leen wax ne ni maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm président Macky Sall euh, lii mooy sixième année ci mandat, bi nga xam ne ne ngi falu en 2012 euh, wax dëgg yàlla rëccuwuñu li taxoon ñu ànd ak moom ñun ku mel man homme de principe la damay ànd ci nit ay valeur dama jël décision ànd ak président Macky Sall gëm na ni su ko yàlla jiitali réew mi changement dina am te loolu li ma gëmoon bi ñu nekkee ci opposition bu doon bilan kese kese ben fànn un jusqu'à 50 ou 80 ci ay matière yo xamné Sénégalais ñu ko ci doon xaar amu ci lenn lo xamné ne ci ay solution lolu kenn mënatu wax bu doon bilan kessé xalaat na Sénégalais ci sen bop am nañu xel ba nga xamné ne ne nañu façon muus macha allah intelligent nañu façon intelligence bo xamné ne bu doon bilan kessé Macky Sall du génn palais bi pour delluwaat ci askan bi di leen laajaat baat pour deuxième mandat du am parce que le mu ngi ne fang nekk lu positif loolu du du du may taxaw di ko xam nga am na loo xam ne ni da nga koy pentiraat pour mu gën a rafet mais moom macha allah bilaam jekk na ba pare du lu ñuy communiquer di ko jaay jaay na boppam absolument wax ma ban fànn la le sénégalais yi doon xaar Macky Sall amu ci réaction absolument mu soo toog benn jour boo xam ne sax sax xel nga xaw a tiit ne eh président de lu taxoon may doon ànd ak moom mu ngi xasee ne jóg jégg yoon bi tuuti naa ko gindiwaat loolu loolu ñaanuma ko yàlla ndax man ni ne la nitu principe la mhm. képp ku ma àndal valeur lay àndee ak moom Macky Lima ma boole woon ak moom mooy mu nekk homme de nitu principe nekk nitu valeur yooyu lay àndee ak moom topp si ginnaawam gëm ko ci wàllu politique ginnaaw samay waajur gëm naa ko sopp naa ko ci sama biir xol mais ça ne veut pas dire que lépp lu mu def rek damay naan baax na nit la te moom it nit la dama ànd ak moom ay valeur ay principe musuma rëcc li ma àndoon ak moom. te valeur yëpp yaa ngi koy gis ci moom ba léegi. bis bu ma demee ba gisutuma ma. li ma daan gis ci Macky Sall ak li ma daan séntu ci moom ak li ko li ma daan xaar ci moom man ak ñi ma samay yeneen morom ñi nga xam ne ne bokk naa ak ñoom valeur bokk ak ñoom principe bis bu ñu demee ba gis dool ci moom dañuy taxaw. mais mosuñ koo rëcc mosuñ koo gis. Mhm. xëy na nag euh, li nga wax léegi yëpp dëgg la mais dafa fekk ne yow sa kàddu dafa safaanoo kàddu ñi nga xamante ni ñoo ji kujje politique bi nga xamante ni du ñu jóg di ŋàññi li ñuy wooyee doxalin bi nga xam ne. dafa loolu loolu la plupart kenn mënu koo jëlee ci ak euh, ak réew. Mhm. France États-Unis fu nekk opposition dañuy taxaw di ŋàññi pouvoir mais yenn saay créer du pas ci kaw pouvoir aussi nekatul politique mën nga opposant Macky a été un moment opposant amna lo xamné régime bi fi à l'époque daf leen daan ci ñenn mais daawul créer lo xamné du deug diko tek ci kaw ne di doxalin bi nak bu ba nga jaarul am say réaction pour mu woon bi ne li nga xam ne ñu ngi koy def nii walla li nga xam ne ñu ngi koy doxal nii bokkut ak doxalin boo xam ne ne euh, euh, euh, nguur war na ko doxal mmh. mais logiquement bu ñu xoolee li opposition bi di wax gisuma ci leen lu taxaw nañ ko wax. Mhm. ñoom xëy na euh, li leen jaaxal kay mooy gis nañ ne yéen dangeen euh, taxaw temm ngir euh, lëbëje li nga xamante ni moom moo di wàllum élection yi. ba tax na ñu ngi wax ci fichier électoral bi. ñu ngi wax ci li nga xam ne mooy carte d'identité yi nga xamante ni nee nañ Macky Sall ba léegi joxagul Sénégalais yi seen carte d'identité ngir ñu mën a dem inscrire ci liste yi fas yéene voté. kaay ma wax la leen Sénégal tey fu ñu toll nii yàlla jàppale nañu kenn mënutul sàcc élection c'est impossible. Nous avons la élection législative bi passé bu doon suñu sago député yépp même si nous avons raflé les listes départementaux ñom ñu am national kese buñu sañon lool moy am mais nous avons perdu nous avons perdu le département de Mbacké buñu sañon duñ ko duñ ko perdre ndax département bu symbole nous avons perdu le département de Saréa nous avons perdu la diaspora comme l'Italie avec trois députés avec l'Espagne, nous avons gagné l'Espagne mais on a perdu l'Italie tey élection on ferme les bureaux de vote à 18 h il faut que 20 h quelqu'un ku est responsable politique bu est responsable de la responsable coalition ou ba ngay responsable parti avant 20 h 21 h xam nga ñaata nga am ci sa bureau de lieu de vote centre vote ak bureau de vote parce que si on parle, c'est d'ailleurs. ngi responsable politique dañu am ñi leen di siégel toog soo paree da ngay am chacun a droit en copie d'un procès verbal fan la ñu sàcc élection ci saa si whatsapp yaa ngi fi da ngay photo li da ngay photo résultat bi ci boppam yónnee ko wala tout de suite nga yónnee par message lii la ñu am loolu presque man ci sama bopp man man logistique yi ñuy mettre en place dans mon arrondissement avant 20, avant 21 heures tous les 88 bureaux de vote de mon arrondissement xam la et pourcentage ban parce que tous les copies de chaque centre vote dinaa def moins de déplacement Bon, avant 21 heures dina fekk ñoom nous ñu indi procès verbaux Je ma am niveau d'intellectuel, intellectuel automatiquement dans l'arrondissement, nous avons la ñu Qui absolument kenn mënutul sàcc élection yooyu ay waxu ça, fichier électoral. Mhm. dafa faut que nous avons 6 millions et quelques Nous demandons de corriger bi paan nuñ ko doxale dara dafa jaar ñoon ba mu ba mu ëpp sax te encore ci wàllu carte d'identité yi nan la ñuy fu carte d'identité nit luñ koy denc nañu xool d'ici peut-être mois d'avril fin avril mois mai mois de juin ndax sénégalais dina fi toog te ku amul carte d'identité am boobu c'était problème de fabrication la mmh programmation bi moo amoon problème te loolu day am ci régime yi nekk il y a des daaf di nga fa fek ay carte d'identité ak carte d'électeur depuis 2006 depuis 2006 ils sont là-bas. avant ngeen ñëw avant ñuy ñëw ñu ngi foofu. Mhm. ñu ngi fofu lolu problème de fabrication la té lolu président Macky Sall ancien ministre de l'intérieur ancien presque euh, euh, premier ministre waxon nako ci Benno sigil Sénégal bimu mu ñëwee ñuy naan euh, euh wad na fi dugg mune man je suis bien placé pour répondre vous Bob, le président Wad <laughs> Wad a bel et bien gagné avec 57%. lolu bim il était dans l'opposition il a dit aux aux aux aux gens ñi nga xam coalition Benno Siggil Sénégal qui sont devenus euh, coalition Benno bok yakar les gens comme Moussa Niasse comme Ousmane Tanor biñu togué di waxtan a bien a bien bel et bien gagné <laughs>

du lundi du mardi toujours terrain politique c'est comme l'armée on ne baisse jamais les bras politique c'est comme l'armée on ne baisse jamais les bras surtout en période électorale on vote le 24 février 2019 le niveau vote élection bi 2018 on est presque à 9 mois 8 mois 10 mois des élections présidentielles que pourquoi xam ne Macky Sall candidat ñorna la mom nga bëgg mu deuxième mandat gis nga né mo ngi liggéey réew mi xam nga lutax mhm. ñi soxla nañ ko wax ak ñom politique discussion la échange la fréquenter ce qui se passe Il y a des projets qu'on a fait dans la région de Casamance en Ziguinchor à Okolda, à Sédou, ce qui est à Dakar et ko. Mhm. ñun ñi bilan Macky Sall discuter il y a un séjour qui est dans la banlieue ou à Dakar. C'est fait que ne Macky Sall def tant de projets tant de projets à séjour. c'est nous qui devons communiquer il faut aller vers les gens discuter avec nous, toog avec nous, parler avec nous. bilan bi Macky Sall def. en tant que président de la République. du premier ministre chef du gouvernement. jusqu'au ku en am que bu tay sa doxalin moy dem jaay bilan Macky Sall ndax lu neex jaay est-ce que dafa fekk ne xeyna peut-être le fait que Karim Wade di annoncer wala Idrissi Seck ngeen gis ko xamne c'est une bête politique comme il faut le dire nek ci biir terrain mo len xawa titel wa wala det Idrissa Seck kon la meuna titel man lu ko kooku daf may jaxal Idrissa Seck xam nga kum kan la wara titel depuis 2004. 2004 la la wax fan la Idrissa Seck di liggéey fan la xëy di di wàcc di liggéey. Bataille continue de continuer de campagne avec l'eau... voilà des choses qu'on doit voir et revoir. mais c'est le président du conseil départemental bu ah, imagine un budget d'un conseil départemental mon cher ne fait même pas 500 ou 600 millions et c'est pas pour la personne. il a été premier ministre également ah, ah, ça veut dire qu'on est premier ministre premier ministre qu'on 2004 ça fait combien bientôt 12 ans Bonne fonction occupée. Président président conseil départemental à salaire 1 million par mois ou 1 million quelque par mois une auto oto budget bu c'est pas pour vous Ce qui est en dehors de ton salaire c'est du carburant pour le fonctionnement Ce qui c'est pour les populations c'est pour gérer les lycées gérer les collèges c'est ça À gérer le département euh, Karim Wade Karim Wad, xam nga dañ fi wax politique man au moins quand on parle de crédibilité on peut comprendre mais Karim Wade, bonne crédibilité là. Mais Karim, il est crédible quand même, il faut le dire. Comment Il n'a qu'à venir. Nous l'attendons avec impatience pour venir déposer sa candidature. Mais oui, Parce que Yakarna, Amna Khalat, Eurobond yi Sénégal am par rapport à sa crédibilité chef d'État, ak réew avec les cent trente et quelques milliards yu mu war a fay Sénégal bu bu ko dugalee ci caisse trésor bi dina nekk njëriñ boo xam ne Sénégalais dinañu dinañ ci gis seen seen bopp. ñu koy xaar kon xanaa yaakaar naa avant muy ñëw déposer sa candidature am na bor boo xam ne ne yoral na ko askan bi ça c'est le Sénégal Macky Sall loolu Macky lu mu mën a def grâce présidentielle mooy baale moom en tant que pouvoir chef d'État mais alal bi askan bi moom Macky munu mënu koo impossible mais yéen daal da ngeen gis ne ñi nga xamante ni dañoo nekk yenn opposants yoo xamante ni dañoo xaw a redoutable daal foog ngeen jéem a ut ay galgal yoo xamante ni nga leen di tag parce que quoi qu'on puisse dire aussi Karim Wade libéré ngeen ko mun ngeen ko bàyyi. bu fekkee pas libéré nañ ko déglu wax la xam nga moom justice moo ko jàppoon. du ñun ñoo ko jàppoon justice moo ko jàppoon. libération bi nag Macky Sall moo def grace bayiko ko pouvoir mayna koko constitution bi mayna koko prérogative chef de l'État grâce présidentielle joxna koko mais khalis askan bi Macky Sall mënu balé? baale Macky Sall mënul askan bi Macky Sall bal pouvoir prérogative chef de l'État en tant que président de la République mën ko bal président de la République constitution mayna ko mu balé yoyu mhm. mais khalis bi nga xamné askan bi moko mom Macky est le président de la République mais du Macky Sall mooy askan bi loolu koy Karim Wade buy ñëw di déposer sa candidature qu'il prépare un chèque de 135 milliards je crois pour déposer ça au niveau du Trésor Sénégal nous sommes preneurs on n'a pas peur de Karim Wade. Mhm. alors bu ñu sur le cas Idi gis nañ ne fi nga xamante ni souvent da ngeen fay pêcher muy Touba gis nañ ne législative yi mujj euh, foofu xaw ngeen fa ñàkk te gis nañ tamit Idi mu ngi intensifier thème envers Touba. dafa mel ni loolu tamit xaw na leen a tiital tuuti. bu ñu seetloo seen soxla non moom Idi moo moo xamul li muy def. ah bon da ngay toll si diggante yoo xam ne ne bëgg a jiite réew bu nekkee automatiquement moo nekk ci si biir bopp loolu dalay jaxase ba nga xam ne doo xam fooy teg sa tànk tuubaa dëkk bu sell. Serigne tuubaa lépp loo koy jiital ak programme boo munta am nga boole ko ci biir na doon lu dëggu ci yow su dul loolu moom si boppam moo koy fajal boppam foog na ne. demam dikkam Touba bi mën na nax askanu murit ba récupérer seen voix ñooñu il sont à ses murs ay tukkikat lañu ay ñëfekat lañu ay liggéeykat lañu xamuñu caaxaan ñooñu ku ñu gëm ku nee rek même booy nekk taalibe Serigne Touba dañuy da leen di wóor na yow bu la yàlla jiitalee réew mi da ngay jàppale askan bi te ñoom loolu loolu duñ boolewuñ ko ci dara ak diine bi Serigne Touba bu fekkee ne da nga gëm Serigne Touba dëggantaan ngay nekk taalibee murit sadix xam nga ni Idriss Seck mi gëmul gëmul gëmul li muy wax waaye et vient yi muy fréquenté dem Touba di dikk foog na ne yooyu su ko defee l'électoral di mërit dinañ ko ci croire te ñoom xam ne ñoom décidé nañu ku ñu voté ba pare xam nañu lu nekk seen biir xol xam nañ li nekk seen biir xol. mais mun na fa apporter discours bu tax ñu mën a. changer idée xam nga discours bi ci seen bopp ñoom ban façon discours la ñu dégluwul ci àdduna amut chef d'état bu nee rek bu taxaw fii bu nekk rek dem nga Touba. Voilà ce premier sortie est déplacé de Touba donc la façon discours bu la politique bu l'opposition opposition du pouvoir façon homme politique bu nee rek dem façon discours bu de dégg nañ ko. Mhm. lu gëm mhm. mais discours wax neex wax wax wax bu neex di tari ay euh c'est à mais luñu gëm moy nous xamné né wax lo du concret. du concret la gëm mais pas rek ay wax. honorable bu fekkee comme ni nga koy waxee seen seen bilan bi du lu ñuy naftable euh, léegi fu mu nekk nii mu di Karim Wade mu di Idriss Seck xëy na peut-être ñoom ñëpp yéen a leen di jéem a kal bu ñu bokk mais euh, ubbi leen làng comme Abdoulaye Wade Abdou Diouf lu ñu doon wax jàkka jaa ngi nii ku mun nodd noddul tey gis nañ ñeen ngeen indi système de parrainage loolu ku jegi mu ngi njott ne ah, waaye wax nga am solo wax wax ngir ngir ku nekk bu mu bokkati Sénégal la bàyyi leen ñu bokk mon ami wax nga wax bu am solo un homme politique crédible hmm. On va aux élections présidentielles. Imagine ce qui est arrivé aux élections législatives. 40 et quelques listes. Ça devait être 47 listes. on a fait élection présidentielle xam nga lan combien de combien de personnes ont été des candidats ils n'ont même pas émis 10 000 voix et alors que il y a qui a ci ay imprimé bulletin de vote mhm. ah, il y a ne amul benn njëriñ ñu def ko te amuñu sax waxuma la 1 pour cent de amuñu sax 10 000 voix loo xam ñun dans nos communes nous avons 15 000, 17 000 voix tu prends l'exemple de Abdoulaye Mbaye un premier ministre qui était là à l'époque. Mhm. il a eu combien de voix dans tout le territoire du Sénégal ak diaspora de voix la am il n'est même pas élu député mu jiitu woon liste. Mhm. xam nga bu fekkee ne caution bi Macky Sall yombal na nee na ku jàkk bi li ngay wax ni moom wax na ko ba pare mhm. jàkk baa ngi ni ku mu neex nga nodd mais du ku mën nga nodd ku mën rek na nga nodd ku mënul nag bul nodd nag munoo nodd bul nodd c'est-à-dire parrainage baa ngi fi nii boo mënul am au moins un pour cent de l'électorat du Sénégal bul yàq xaalis réew mi bul yàq alal réew mi pour di di di di di multiplier ay bulletins de vote nous avons am des voix sénégalais c'est-à-dire que l'exemple est là Abdoul je vous parle je ne sori voilà am ñoo xamné ne des dañ nek tay ay député ay forest imagine ça nga nek député forest di préparer nak élection présidentielle comme que caution bi c'est 30 millions di nga mën nga dem banque sax def garantie sa euh, euh, euh, euh, rek ñu jox millions nga ñëw déposer nek candidats. candidat

mais xam nga xam nga ne Mbaye nga élection législative Il y élection législative uh-huh. eh, presque 10 000 voix des sénégalais xam nga ne kooku tey des sénégalais day rey boppam am na am qui def ci am ñoo xam ne dañuy bëgg duufal seen CV man présidence de la République du Sénégal bëgg ko ah, pour que si ñu paree def seen bureau consultant boo paree de carte visite ancien candidat du présidence de la République du Sénégal rien que pour ça mais ils ont sûr que ils sont sûrs quand on ne dem nga élection législative tu n'as même pas eu la capacité d'être député wala nga nekk dem élection législative voire nationale diaspora ak sénégalais ñooy voté xam nga lan nga am foo res moo nga député xam nga boobu député munoo ci jargat jargati sa crédibilité de des tu n'as même pas eu le nombre pour mun a député laa wax mhm. et nga bëgg a réew président de la république du Sénégal boo buggee changement yi am doxalin am nga 1000 am nga am nga pour bañ Macky Sall bañ nek ce candidat mais ça ne veut pas dire que kay yo demal demal ci keneen y' a pas de souci. léegi on n'a pas peur de ça. Mhm. léegi yéen seen li ngeen def non yëpp bu anto kon Macky Sall bu démé 2019 kan la wara a barina dina Macky Sall neew fi. je suis sûr que dina Karim Wade est black out. tey jii nii le PDS le PDS amna yakar ñoñu mën nañu am. ban PDS ah oui le PDS. le PDS bi presque c'est une balichon sànni nañ ko biir APR PDS. ah bi qu'on bi di laamee ne balichon presque sànni nañ ko pourquoi. Mais Ils vous avez 500 et quelques mille voix des élections législatives. Vous êtes de la même famille libérale, presque. Nous sommes de la même famille libérale. Nous souhaiterons qu'ils viennent accompagner le Macky dans le famille libérale loolu loolu souhaité naa ko uh-huh. loolu souhaité naa ko lool tey mm-hmm. am naa bu fekkee ne réew mi moo ñor mm-hmm. mais def ci am ay homme politique un calcul bop mo mo moo leen yëkkati moo leen tax jox, c'est pas le Sénégal wala tout ce qu'il parle du Sénégal c'est pour avoir la voix des Sénégalais mais c'est faux newul lo xamné ne lu la ci ñom. dina am ay candidats il faut pas dire que tout il faut pas dire que toutes l'opposition amu ils sont faciles à écraser non, voilà non pas pas facile à écraser. c'est pas écrasé. il y a certains candidats. Uh-huh. sénégalais ci sont bop ñom ci sénégalais duñu xalaat ci biir xol xel. Uh-huh. que ñi dinañ leen jox suñu voix. waral am ah, que nek na candidat présidentiel. Euh, de faire ce CV ou ce carte visite. Mhm. Ah, que candidat présidentiel candidat qui est allé aux élections législatives amoo 10 000 voix. et pour être un président de il faut au moins avoir 2 millions et quart d'électeurs par mhm. bu candidat, ci ci ci ci ci avez CV de vote dañuy dafay tardel nit ñi. Mhm. du ñàkk nag dina am ñoo xam ne ne ils auront les

au niveau de la mouvance présidentielle am problème interne bi nga xamante ni. problème war ngeen ko régler. mooy ban ñu ngi wax waxu clivage boo demee ci localité bi telle personne jubéwul ak telle personne loolu war nañ ko. régler d'abord loolu kenn mënu koo deree ci parti bu yaatu. muy coalition muy parti politique. bu demee bay mag ba am yeneen dimension rek dina am ay situation yoo xam ne ça se gère toujours interne. mais du mañ problème politique moo demee noonu kujje moo demee noonu politique nee nañ kujje la ça veut dire ay xëccoo la làmb la xamné bo ñëméwul boo defante rek du sa du sa arène mais pas pas amuñu problème ñun suñu biir mhm. té quel que soit problème buñu mënta am la candidature du du président Macky Sall ñun ñëpp suñu ñëpp ñoo ci bokk objectif ñun ñëpp ñëpp juboo ak ñak juboo suñu biir yëpp séparé wuñu Macky Sall mooy suñu candidat amuñu benen candidat bu dul président Macky Sall absolument lolu tamit lu chance la ci ñom mën nañu am problème suñu biir interne loolu kenn mënu koo éviter ci politique régime bi fi nekkoon am na bi am na régime bi nar a ñëwaat après 2024 après Macky Sall dina am loolu toujours dina am ay d'ambition, problème ambition problème euh, considération yooyu yëpp kenn mënu koo dindi c'est inévitable en politique mhm. mais le problème benn la suñu candidat kenn la objectif bi benn la candidat bi Macky Sall la objectif bi qu'il soit réélu au premier tour le 24 février 2018. te loolu bu ci yalla andé inshallah allahu rabbi Macky Sall va être réélu inshallah au premier tour. avant dernière question alors tey jii nii ñu ngi la dégg nga nan sur les zones de Dakar ak né euh, Macky Sall xeyna mom moy mu jëddon doon sa patron ci walu politique. oui cela veut dire que tey jii nii mënul am troisième mandat mais bo leen demoon ba beneen élection ñew keneen ci waa loolu du duma bokk ci ñu koy conseiller man man nit bu mako bëggé duma ko jaay Macky Sall dama ko bëgg ba gëm ko deuxième mandat dinañ ko combattre Inshallah, il va être réélu à son deuxième mandat mais du ma bokk si koy wax ni troisième mandat. bu ko constitution permettrait mu. man man nee la xam nga man ku nekk ak nee la nitu principe laa te am valeur man amna limay bëgg amna limay bañ Macky Sall bëgg ñaari programme amna ko Baba Mal je le choisis comme mon chanteur. politique Macky Sall mooy sama leader. loolu il faut mu leer té Macky Sall aussi bima lay wax ni

di ko xelal lool ça veut dire bu amone xel boobu bu ma ko bu fekkee ne diisoo ak man. Mhm. man duma bok ci ni ko ko ci jox accord. absolument alors dernière question xamna ñu wax rek ci actualité parce que gis nañ temps yi le pays est un peu agité. Macky sal moy sama dernière homme politique. parce que man politique euh awma vie de famille. Mhm. dafa bari stress mais loolu Macky sal moo ko jaral. Mhm. bëriwuma ambition yi may bëgg. awma niveau de di aw niveau bu bëri. aw ma diplôme. dama koo bëgg. parce que bëgg naa Macky Sall bëgg naa sama gox moo waral ma ànd ak Macky Sall sama mbokk waa commune des Agnam jiital ma def ma seen maire ma di leen gërëm élection législative président Macky Sall boole ma ci listam def ma neuvième position ma ko ci gërëm mu boole ma ci membre du secrétaire exécutif de ce parti te man rek maa ci nekk ku jàngu loolu bu mu su la doyul lan moo lay doy tout à leneen lii nag mooy mooy mooy mbirum politique mooy sama dernier homme politique parce que Je lo xamné ne man du politicien. Mhm. par accident l'a ci mhm. donc du ma ko top aussi euh, fi ma da ñëw ñu may ma top ko ba saggan ñu may ñëw ñu may yuxu bugguma am finition ci walu politique. Mhm. histoire du ko créer di ko alors ñu actualité nga phénomène nga sénégalais

frère boo xam ne am na doom bu ndaw donc loolu munu ko munoo ko bañ a boole ci seen programme mhm. munul nekk loo xam ne daf lay soxal dëgg dëgg dëgg dëggantaat moo waral li ma leer ba leen président de la république Macky Sall ak gouvernement jël nañu ay dispos ay motuka motukaay yi leer pour loolu incha allah nan lay dàkkee waxuma la nu ñu koy arrêté nii rek mais loolu nan lay dàkkee ci biir Sénégal mhm. je crois que am na ay programme yoo xam ne dina am ci biir ah, réew mi surtout fu ñuy faral di sàccee ay caméra cachée en tout cas maa ngi leen wax lu faire dina fi am loo xam ne ne euh, loo koo laalati rek. Hmm. ou bien loo ci biir mbedd bi le lendemain suñ ko bëggee xam lu yomb lay doon. parce que am nañu quand même système boo xam police bu compétent gendarme gendarmerie bu compétent magistrat yi compétent luñ bëgg xam xam ko suñ leen ci matériel bi war rek day daal di faciliter seen liggéey ba nga xam luñ avant avant 12 heures de temps waxuma le 24 heures ñu génneen ñu résultat ak bilan bu positif. Raoul boo doon jàkkaarloog caméra bi jàkkaarloog président de la république war ko souhaiter joyeux anniversaire ci 6 ans yi war ko conseiller lan nga koy wax. en tout cas maître monsieur le président de la république je vous lay souhaiter joyeux anniversaire ci e année bi nga xam ne yàlla may vous la réew mi maa ngi lay gën de dénk bàyyi sa xel ci ñi nga xam ne da nga àndoon ak ñoom démb. bu metti loolu kenn du leen fàtte mooy ñi nga xam ne ne dañu taxawoon naan Macky Sall la gëm fu ñu nekk nag ci biir Sénégal ak ak diaspora Sénégal bi yëpp mu bàyyi leen xel mu bàyyi xel encore ci coalition benn Bokk Yaakaar bi ñi nga xam ne ay parti politique légalement reconnu tey mënoon nañu am ambition bi nga am bu ñu jëlee décision ñu naan yow lañu bëgg a jàppale nga amaat deuxième mandat ñu réélire la bàyyi sa xel ci ñoom leneen li ci topp tamit askan bi Sénégal bu weesoo politique ñu ñëpp bokk ndey ak bàyyi kenn ku nekk affaire bi buñ ko def affaire bañante na nekk loo xam ne ni lii problème mu ambition la danga ko bëgg loolu du lu bon nit bëgg naa jiite réew comme ni ko Macky Sall jiite du lu bon mais bu ñu bañante nañu xam ne askan bi benn la Sénégal bi benn la te diini bi ci seen bopp ni leen yàlla jàppalee tey képp kuy murit képp kuy tijaan kuy xaadir kuy laayeen ah kuy ñaseen ñoom ñëpp fonkanti seen biir nekk benn noonu la waa homme politique yi waree nekk benn mhm. jàppalante seen bopp parce que quand même nañu xam ne benn Sénégal moo fi ne benn Sénégal la du ñaari Sénégal tout à fait ku fi jiite réew benn président ngay doon jiite réew mhm. Macky Sall moom la yàlla teg fii nañu nangu loolu reconnaître loolu moom président aussi di li muy def ci diine bi tey ah diine bi yépp di ko ñaanal vraiment lolu xel bu rafet la. Mhm. té na ci continuer nak diiné musulman ak diiné chrétien bi yépp mu baye ci xel. Mhm. gën ci baye xel parce que lolu du sama xalaat du sama conseil xalaatu bopam la won mais comme laaj nga ma lan la koy conseil lolu dafa bok ci luma neex. Mhm. ndax am na tarix bi ma bokk. keneen am na bu mu bokk na laal tarix yépp boole leen loolu dafay bok ci lo xam dina marqué histoire du Sénégal ba nga xam ne presque chef d'état il def ci effectivement loolu mi mu gën mu gën gën donc euh, mhm. presque euh, mhm. Sénégalais aéroport bi déjà gis ngeen c'est tellement joli de ci jaaree di tukki da reconnaître que tu vas da fierté d'être sénégalais. Si mhm. aussi xam fait boo koy teeru ci biir aéroport bi dangay am fierté teer bi ñëw ñu dugg ci train électrique boo xam ne ne ça dina appuyer totalement banlieue bi loolu lépp mu mu mu egg ak jàmm ak salaam kooku bu laajaatee man sama xalaat bu gàtt bu mag Sall laajaatee baatu réew mi warul nekk problème boo xam ne ne vraiment euh, dina am problème maa président maa ngi te encore mhm. di ko di di la wax ne aussi yàlla may na ko chance mu am soxna su baax mhm. soxna su baax lépp li muy def

que faut rek les dem rek. Mhm. nga ce ne la parce que li muy def gëm. askan bi la plupart même les hommes politiques comme nous sax du associés parce que def directement ci peuple bi effectivement mhm. opposition du pouvoir ku bénéficier yàlla moo tax mu di ko def xam nga kooku jar naa ñaanal yàlla mhm, soxna boobu vraiment li muy def te yàlla tax yàlla na ko yàlla may yooyu situation mhm. euh, defaat ko ci njabootam te li mu yéenee euh, euh, ala jam bii di Macky Sall mu deuxième mandat Yalla na ko Yalla yàlla absolument Hamna naa ne ku ko jàppale ci wàllu. Mhm. situation réew du politique bi rek. tout à fait xëy honorable ñun tamit ñu siy profiter de le souhaiter joyeux anniversaire ci six ans de pouvoir hein. gërëm ko sant ko honorable député Farba Ngom may rappelé également mon maire de la commune des Agnam Grand ko sant ko ba léegi ñu ngi si li nga xam ne série d'interviews interview ak entretien yi def ci li nga six ans de pouvoir bu régime actuel bi nga xam Macky Sall moom dit le président de la la république Macky Sall gërëm leen sant leen di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen personnalité ba léegi ci bilan bi nga xamante ni mooy six ans au pouvoir bu régime actuel bi jërë ngeen jëf